bindaguñ ko amatu amagut ak ruuxam dikkagul ci yaramam loolu kon jëkk gi ñu ko njëkk bind lépp ñu binde ko ci moom loolu itam day tegtale ak gëna ak gënam ak gën a kawee ak gën a kaweem daraja ci lépp lu yàlla bind salli ala manin jaal xutbal wujudi xiina xal wa aalihi zawi nihal wa sahbihi wa karrimi mi ngi ko ñaanal yàlla dolli ko teraanga moom mi nga xam ne bi ko yàlla sàkkee la doon ki gën ci mbindeef fii waaw xutbu euh, xutbul wujud nga xam ne mooy ki gën a kawe te euh, daraja yépp bàyyi ko ci bàyyi ko ci moom kon mooy cosaanul ngëneel cosaanul ngëneel nga xam ne fépp lépp luy xeetu ngëneel ci mbindeef mu mën a nekk ma nga bàyyi ko ca moom mooy sababu si yërmande yàlla ci li mu bind lépp nga xam ne yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam kenn ku nekk ci ñoom la nga doon def ci ay kawteef ak leer ga nekkoon ci yow ba tax ngay mën a def kawteef yooyee loolu lépp dañ leen ko caa dañ leen caa jox dañ koo tànq ci leeram ga ku nekk dañ laa tànq ci leeram lu ne def ci yow luy tax ngay defi kawteef luy tax itam nga doon ab yonent moo tax sëriñ bi di wax ne la in jaa bil ayaati rusulun taqaddamu fanaaloo bi kal ayaati min zi tafadduli neen su fekkente ne am na yonent yu màgg daraja yu kawe te bari te jiitu la ci feeñ daan defi kawteef euh, loolu ñu ko amee loolu euh, ci yow lañu amee kawteef yooyu ñu daan def la jiitu sag ñëw أشهد أن محمدا رسول الله إلا kon ci liy tegtale kaweeg darajaam ak nekkam gi mu nekk ngeen ji mbindéef mooy lëkkale gi sunu borom lëkkale aw turam ak ku turam ak turam nga xam ne du nangul kenn ginnaaw bi ko bi mu ko yónnee mu def lenn lu baax euh, loo xam ne jaarewu ko ci moom nga xam kuy seede wéetug yàlla ak doon gi mu doon ki ñu war a jaamu balaa sedd saa dëggu danga ci ciy boole seede waale ne moom moo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu bi yàlla la bu mu yónni nga ku boole ku nanguta boole ñaari sedd yi su borom du ko nangul seedam gi mu koy seedal ak wéetam ak nangu ak njaamam ci moom fu ñuy tuddee tur yàlla boole ci turam léegi dégg nañu bi ñuy noddu fi ñu tuddee turu yàlla rek tudd nañ ci aw aw aw aw aw ginnaaw bu ñu saxalee nag ne yàlla moom amul amul moroom amul amul kenn la loolu lañ ubbee allahu akbar allahu akbar loolu lañ tëjee itam laa ilaha illallah waaye ginnaaw bu ñu wéetalee yàlla nag teg ko foo xam ne duñ fa teg kenn dañuy nangu nag ne moo ki gën a kawe nag daraja gën a màgg ba tax na kuy jaamu yàlla faaw nga jaarale ko ci moom ku nangu wéetug yàlla faaw nga nangu ak yonentam nangu ngëneelam nangu ak kaweem sa jaamu gépp nga di ko jaare ci nam na ko ko nam la ko jottale jële ko ci ci yàlla loolu kon day tegtale kawe dara jaam bokk na ci li koy tegtale ak gën gi mu gën euh, don gi nga xam ne lépp moo ko moo ko moo ko gënle moo gënle lépp bu dee bind bindub yaram dañuy wax ne doomu aadama mooy ki gën a rafet aw bindin ci li yàlla bind wala bokk na ci ñi gën a rafet nu leen yàlla bindee moom doomu moom aadama ak doomam waaye moom nag mooy ki gën a rafet nag moom ci biir doomu aadama yépp ak leneen li yàlla bind lépp mooy ki ci gën a rafet nu ko yàlla bindee moo gën a rafet bind ñëpp waaye ni gën a rafete bind ñëpp noonu la gën a rafete jikko itam ñëpp kon moo feeti kaw ñëpp ci bind bindub yaram feeti kaw ñëpp ci bindub euh, bind ci jikko ju rafet loolu sëriñ bi wax ne euh, euh, wax na ne moom mooy ki nga xam ne kenn mësta kenn melu ni moom ci bind kenn melu ni moom itam ci ci jikko loolu kon day tegtale kaweeg darajaam bokk na ci li koy tegtale itam mooy yonent yi ya ko jiitu woon yépp ku ci nekk bu ñu la ci saw xeet waa nga bokkal rek lañ lay yónni ci sa jamono lay sag yonent tàmbalee ba àgg ca bu sa moroom ñëwee sag yonent daal jeex yonent geneen yonent tàmbaliwaat moom nag bi mu ñëwee yàlla da ko yónni ci ñépp ci xeet yépp la ko yàlla yónni ci barab yépp ci jamono yépp nga xam ne bi mu dikkee nekk ab yonent mooy ki mujja ki yàlla mujja yónni euh, nga xam ne ak ab yonent dootu ñëw ginnaawam te ci ñépp lañ ko yónni ci jamono ji ak yonentam day dox ci jamono yépp booba àddinay tukki loolu bokk na ci liy wane kaweek darajaam bokk na ci li koy wane yeneen yee ko jiitoon yëpp bu ñu amee ay xarbaax ay kawteef kawteef yi ci seen dund lay yem buñ fu ñu yem kawteef yi yem fa moom nag bi mu ñëwee ay kawteefam day day wéy ba ba àddina yi tukki nga xam ne alquran ji yàlla wàcc ci moom muy kawteef gi gën a kawe ci ay kawteefam dafi des ba faw di lottal mbindeef yi ci ci ni ko yàlla nose ci waxin wi ci ni ko yàlla waxe nga xam kenn du mën a wax wax ju niroog jooju wax lottal mbindee fi ci li mu làmboo ci ay xam-xam lottal leen ci limu làmboo ci ay tëraliin yuy tënk dund doomu aadama ca nam gën a rafet ci anam gu mu mën a doon lottal bindee fi ci limu mu ëmb ci ay mbóot yoo xam ne jaam ñi duñ ko xam-xam ba jeexal ko ba ba ba nga xam ne kon loolu bokk na ci li tegtale kaweeg dara jaam bokk na ci li koy kon loolu bokk na ci li tegtale kaweeg dara jaam su googu nag sëriñ bi mag bi nga xam ne mooy liggéeykatam bi ko liggéeyal liggéey bu ko kenn mësa liggéeyal te kenn dootu ko ko liggéeyal ci di ko tàgg ak julli ci moom ci ay taalif wax na ko waxati ko waxati ko ci anam anam gune waxee na ko ci anam gune xamal nañu daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ku bokk na ci fi muy waxee ne man zanna annaka xaakil lbashara wal jinna wal malaka lan yubashara ku jàpp ne niroo nga kenn muy muy nit muy jinne muy malaaka ku jàpp loolu kooku moom du du du du texe du am li mu bëgg ci àdduna du ko am ci àllaaxira maanaam ku ku ku ku texe texee da doon ndax ku nar a texe rek dana nangu ne yow yaay ki nga xam ne niroo wala kenn yaa féeti kaw ñépp xaaka siwaaka gayrahu min al wara wa anta mu ne bu fekkee am na kuy niroo keneen keneen la waaye du yow yow moom kenn niroo woog niroowul ak kenn kon yaay ki gën ci ñi yàlla masa nataal bind ñi yàlla masa bind ñépp yow yaa ci gën madda ilayka la fadlan zahara kama mu ne ko yàlla may na la ngëneel lu fes ñépp xam ko teg ci seeni bët waaye am na ngëneel li lim la jox am na ci lool feeñul te mbindeef yi mënuñu koo xam madxuka anjaza lasi tafakkura amala yaa xayra bashirin shakara moo tax tagg la te mooy wax say ngeneel ba mu jeex képp kuy jëfandikoo xel rek di la tagg ci loo xam ne day xalaat ci xelam di xam ci say daraja di ko wax kon tagg la lottal na kookee yaay ki gën ci ku yàlla ma sa yónni muy bégal nit ñi ñi way gëm ñi ci àjjana di xupp ñi nga xam ne ñooy weddi ci safaan ba daawta lillahi aliyi bashara wa jinna anta xayru haadin bashara nee na ko woo nga ñépp nit ñi ginne yépp woo nga leen ci yàlla kon yaay ki gën ci ñi yàlla bind kon darajaam ju màgg ju kawe jooju moo tax ñu war di ko màggal waxtu wu nekk ci di julli ci moom ak di ko di ko nuyu fu ñu toll ak di teewlu ak màggam ah, kon buñ sàkkee guddi guñ koy jagleel ci lu mel noonu loolu ak fàttali rek la ak soññ goo xam ne kon war nañ cee bàyyi xel bu baax te jox ko àqam ci ni nga xamee noonu lañ ko lañ ko jàngalee eh, ci nekk sëriñ bi aku aku aku joxajam dañ di ko kilifa yu baax yi di ko fedd li ba waxtu kon ñu ngi ndokkeelaat ñëpp du ñaan yàlla ñu àgg ci guddi gi gu tedd googu te defee ko ni ñu ko santaane soril ci lépp loo xam yellu ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa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

ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah الحمد لله الذي أنعم علينا بإظهار سيد البشر وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام فاقت أنواره النجم والقمر وعكف على منزل آمنة الطير وهلل وكبر وانشق إيوان كسرى ومهل وانكسر فسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر أحمده حمد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكرها ينسر اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الناس سبق في علم الله كما ورد في الخبر ما كان وما يكون وما غاب وما حضر فسبحان من اطلع على خلقه وعلم طاعة الطائه وكفر وكفر من كفر قبض قبضة من خلقه وقال هذه إلى الجنة ولا أبالي وهذه إلى سقر وقبض قبضة من نوره وقال كوني محمدا سيد البشر فكان بين يديه كالمصباح الأنور وخلق من نوره جميع الأنوار والكائنات وكان اسم الرسول على العرش مسطرا مكتوب عليه لا إله إلا الله لا أغفر لقائلها حتى معها يا محمد تذكر ولما أراد الله أن يخلق آدم أبا البشر أفرغ على طينه قطرات من نور النبي المفتخر وقال لها كوني آدم فكانت كما قد جاء في السير وفي الحديث من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم ير أحد سوءتي وعنه أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجلمود ولا يخفى عليه نبي دبيب النملة السوداء ala saxrati sammaai fi layaali suud ahmaduhu subhaanahu wa taala wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun tasarrafat bihi al anbiyaa wal juduud اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبت زرع وأورق أما بعد يا أيها الناس ظهر الحق المبين والعيون عمي لا تراه ووضح الطريق المستقيم فليرجع المفتري عما افتراه ففي مثل هذا الشهر العظيم طلعت شمس الإيمان وذلت عبدة الأوثان وظهر دين الإسلام بولادة سيد المرسلين خرج من بطن أمه معتمدا وبالملائكة الكرام معتضدا ناظرا ببصره الشريف إلى السماء مقطوع السرة مهتونا مباركا على الأمة مامونا وظهر معه نور أضاء له قصور قصور بصرى وأطلع الله في السماء نجوما فصيرها للشياطين رجوما ولم يزل عليه الصلاة والسلام ولوائح السعادة تلوح على سمائله وبراهين السعادة تظهر بدلائله حتى استكمل من السنين أربعين أرسله الله لكافة الخلق أجمعين وفي الحديث kuntu awwalal anbiyaai fi lxalq wa aaxirahum fi lbansi wa innama buistu aaxira zamaani liyallaa tattalica al umamu ala fadaa'ihi ummati yaxfirullaahu lanaa wa lakum wa li jamii'il muslimiin amiin allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah Allah akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahman أتاك حديث سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غهاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا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 الله أكبر الله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 سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها السماوات وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ أدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون